Euh, di ciy dindi. loi boobu nag su jàllee dina am ay conséquences fii ci Sénégal. comme fii Sénégal sax tere nañ leen ko def nañ ay loi mais taxul ñoom ci seen bopp c'est dans la conscience collective de ces populations ces populations yooyu ci lañ ne lii mënuñu koo dindi tey du deñ tey tey ndax dañ koo gëm ci seen aada ak cosaan donc développement bi. daf ci bokk Sénégal gi itam yàgg nañ def loolu parce que yàgg nañ leen wax teg leen li ngeen di def ndax bëgg juróom benn téeméer wala juróom benn fukk wala dara ak saabu parce que loolu symboliquement dañ daan joxe saabu joxe tuuti xaalis loolu nag boo ci defalee lu mat ñaar fukki xale xaalis la donc ñoom xaalis lañ ko defoon am na si ñoo xam ne sax gëmuñu ko. bile déclaration nag ñu ko signé toll na ci fukk ak ñett organisation société civile africaine. ñoom nag lu ñu bëgg mooy état bu Gambie daal di respecter protocole de Maputo ba nga xamante ne signé woon na ko.